waaw ah, ñëw na fenn ak fenn moo dem waaw gis nañu fi jaayee baay ah kala non ñëwagul ñëwagul wax dëgg kii moom kii moom pare euh, naa dem dama defoon waaw ah, waaw d'accord xëy wal jaayee baay yaay bu ñu fàtte barkeelu bu ñu fàtte barkeelu lu waay am rek xewuñu dara ah le grand patriote Kanté Jërëjëf <laughs> eh, jërëjëf la karnati yaa ngi pare ne di jël xaalis waaw ah, rek yéen a ko mën a ane patriote bon il fate ne suba jogui no ɓawa ɗo tamit tane ɗinen fo parane suba Kollegare. Ah, da quel collegare di qua, ok, con

siar pare siar pare bu fàtte ziar bi ziar ziar bu pare ne kéem daal di ne waa def leen ziar def ziar bi moom def ziar bi mat na mat ziar leen ziar leen kuy xeex da ngay am arbu arbu doo xeex te Sénégal xaalis la laaj campagne bi dafa métti. kon donc joxe leen. campagne bi dafa métti de. dëgg la dëgg la waaye am bu ko xeeb. kon dégg nga kan yi de Sénégal dafa am na ne buñ leen kii mooy Ibrahima ñaan kii mooy Ibrahima ñaan <laughs> waaw jërëjëf ci projet bi lañ gëm ñu. jaajëf waay merci beaucoup. waaw lu ay sa taal taal rek. Ah. Bassirou dana ko fay. waaw. mais nag lu ay sa taal Bassirou dana ko fay. waaw ah, merci beaucoup fay rek. jërëjëf incha allah. voilà nga ne. du don de soi. jaral ah. def waaw ok kon ñun suñu parti. 1500 ah. euros ah. ok kon ku na def sawaay eu eu yaa nekk fii si biir yaa yore addiye yi addiye yi day wàcc rek kon kees bi day fees de bii mooy deuxième kees bi ok voilà ok waaw noo tudd yow Mamadou Dame Fa Mamadou Dame Fa voilà kon dégg nga Mamadou Dame Fa mu ne bii mooy deuxième caisse bi waaw ok Thank you. waaw sawaay na def. ça va alhamdulilah ça va noo tudd. Cheikhou Niang. waaw Cheikhou Niang euh, fi nga dëkk Rebato. Rebato ah. Euh, lu la lu la fi indi. parrainé pour parrainé. pour changement. Ah. Euh, dama gis nga parrainé ba pare yëkkati xaalis joxe. waaw weer fa nga changer fa nga changer fa nga changer fa nga changer ah, ah. kon ñun rek ngay def ñoy parrainer di joxe xaalis ya, di joxe waaw ah tax ah. soxla wuñu xaar ñu lenn ci ginnaaw xaar ñu dul ci dëkk bu baax kon ku mën na def waaw ku mën def lo dox le soir ku mën na def ok kri Thank you. amul amul yox yoxe de. boobu moo lay moo lay boobu moo yaay ngi laa ko amoon. Arona bàyyi sama ngir yàlla ah Arona bàyyi maay loo ma toppee nii yaa Asu Ndoy ni loo ma toppee nii Mboro. ah Arona. laa ko jënd woon wax. sëriñ bi kooku dafa déggee l'Afrique xam la li Descartes doon wax la la logique monsieur Ndiaye waaw monsieur Ndiaye merci beaucoup

yow fi nga dugg déglu rek yow leer waxal ngeen si moo xoolee. lii après da nga koy plastifié parce que comme voilà da nga koy plastifié bu duggee ci tabaxkaa bi da nga koy plastifié. voilà. taxaw xaar su gaa yi compté rek gaa yi public jëm joxe nga kii xaalis bi ah. ah oh, d'accord. Euh, alors Awa. Ndiaye. waaw si. Mhm. looy def nii. waaw non Sane. waaw damay damay jaay carte moom. waaw damay damay nekk di remplir. ñi nga xamante ne ñu ngi ñëw adhéré. Mhm. bokk ci parti bi. ñu leen te gars yi ñu dañ koy jënd. waaw ñu euh, te ak contentement te kenn forcé wul kenn. kon ku mun na def. a jënd carte membre. lu la xër si euh, Pastef. ah rek ndax euh, Pastef rek. voilà. jaleen tiim set ak hygiénique lépp lu jigéen di soxla rek bien mettre am gars yi dañ koy moom wér lañ ko seen ay jigéen yu jaabaat nañ ko xeex pour seen dëkk ba gars yi jàppale ñu nekk ay kii bu donc wala ñu dem fàtte gars yi nañ préparé le 23 décembre

dañu yaakaaroon commission bi day ñëwaat. commission dafa war a ñëw moom suba dafa woon Sénégal baax mais wala tey jii tey la war a ñëw sax. Ah suba mais bu ñëwee ko na saa mi nañu indi commission bi ñu a jox ñu seen. jox ñu parce que on a deux cent quatre vingt dix parce te gis ñi toog seen kër waxuñu ñoo ëpp ñi ñëw. man moo may wax gars yi dem fekki leen ñoom ñoo xam ne doo leen gis si parrainage doo leen gis si meeting doo leen gis si manifestation. gis ngeen de. waaw bagage yaa ngi nii de. bagage ngi de. suma de. waaw drapeau national yi ngi ndax président Ousmane Sonko moo tax léegi ñëpp di honoré honoré drapeau national waaw waaw mu ngi nii porte clé yee ngi nii bar yee ngi nii drapeau yee ngi nii bracelet yee ngi nii saagu Sonko ngi nii te gars yi dañuy jënd ba mu jeex waaw ngi jënd rek carte de membre waaw. gis nga de lii nag moo moo ëpp importance pour ñu xam ne que da nga bokk biir parce que. waaw ñoo ko voilà ñoo ko woon Saliba. waaw xam nga nga bokk parce que après nga. ma dugal la ci GPS. ma dugal la ci GPS. waaw kon kon. gis nga de. waaw gis nga ni leen. waaw boo xam ne ñoom nee nañ rek. waaw ni leen di nax. dama ah. ba fii ngay fay fii ngay fay waaw. gis nga de ak benn la gis nga gis nga de bii bu ndaw la bii bu ndaw la de ndey. bu aw aw jël jël na benn. carte baax na. carte yi bu laay. waaw soxna si yow ya, la la lu la xiir si lii sonko rek sonko rek loolu dong Salam salam. Ini waaw asalaamaaleykum gars yi tey ñu ngi fi Robato si deuxième jour Nemmeeku Tour ñu ngi remercier patriotes yooyu ñëpp yoo xam ne ñëw nañ fii parrainé seen candidat muy Diomaye Faye eh, te Diomaye mooy Ousmane Sonko mooy Diomaye si daal tey ñu ngi nii taxawal ak sunu vis coordinateur Assane Gadio muy patriote bu mag bi l'infatigable toujours présent.

contentement si vraiment si journée bi nga xamante ne moom moo am démb ak journée bi ñu nekk nii tey Rovato euh, vraiment satisfaction la am parce que euh, mbir mi daal li wax daal ne Ousmane daal mooy Ousmane Sonko mooy Sonko tey jii lii nii am fii ferveur bi si am ak nit yi nga xamante ne ñu ngi jóge seeni kër ñëw. pour parrainer ba pare jël seen alal def si non amuñu patriote yi daal yàlla na leen yàlla fayal boppam yàlla na yàlla sàmm aar projet bi ba nga xamante ne fi ñu bëgg mu àgg fa mu àgg fa te ñun ñëpp ñu gis si njëriñ yàlla mën na ko yàlla nañ ko yàlla defal si daraja seen am satisfaction totale te deux jours rek lañu defe ko satisfaction totale. jë jërëjëf waay jërëjëf si kàddu yi monsieur le vis coordinateur léegi sama beneen question bu ma leen laaj mooy. Patriot yu parrainé gul démb ak tay lan nyom leen xaar nak ñom ñun ñu ñoy juk dem fekk len bureau bi wala dafa am euh, bureau parce que section brecha ay nit yu mu habilité yo xam ñom ñoy dem ci ñom fekk len pour parrainer ak nemmeeku tour bi fan la tollu nak samedi war nañ dem ci sama information war nañ dem ci sen zone bobu nonu ay calcinato léegi yow lo ci mëna tontu quoi. waaw léegi pour euh, ñi nga xamantene ne guñu Euh, ñun am na secteur yoo xam ne exemple fi ñu dem def nemmeeku tour am nañ fa ay représentant yoo xam ne ñooñu euh, ñoom ñooy parrainé léegi ñeneen ñi nga xamante ne nag nekk nañ si ay secteur comme lu mel ni Rovato ak feneen ak feneen am na ñoo xam ne tamit dinañ fi bàyyi lu mel ni palaat solo am na ñoo xam ne ñoom ñoo fay nekk pour pare ne donc euh, ñu ngi organiser wu pour ñi nga xamante ne amuñu woon possibilité ñëw Brescia amuñu possibilité ñëw Rovato dinañ xool nu ñu organiser pour ñu fekkaleen seeni kër. pare na leen euh, beneen bi mooy nemmeeku tour bi ak parrainage bi la couplé mu ngi mu continuer ba léegi parce que fi mu nekk nii euh, semaine prochaine weekend prochaine ñu ngi jëm euh, Lago di Garda muy Calcinato desensano Sirmione bedisole ak Ponte San Marco dimanche ñu ngi jëm chiari ak Carpenedolo

bureau bi ñu ngi leen di sant di leen gëreum parce que liguey bi rafet na élargir nañ affaire yi ubbi nañ fi mu nekk ni mom patriote bu bëgg parrainer rek am nga localité bo xamné bo fa démé rek di nga parrainer inshallah donc après euh dinañ duggal numéro téléphone ci panel yépp ñi nga xamanté zone yépp nga amné ku bëgg a parrainer rek bo jaaree si boo ootee gars yi dinañ ñëw bo mënu déplacer wu gaay yi dinañ ñëw sa kër parrainer la inshallah inshallah wa jërëf waaw monsieur Assane Gadio man sama dernière question. moy loy wax patriot yoo xamne de jele guñ sen carte wala suñ demé ba ki ko consulat ba ñoo len sa sen carte gennagul yow loy len wax yeen carte ngeen di sànni ñoy wa patriot yo dama len di wax rek euh, ñu am patience té am pas-pas parce que patriotisme euh, Pastef comme ni may wax rek ko amul Pastef do ñew ci dëkk bi parce que dëkk bi bo xolé ñi fi ñew ñëpp 90 yi. ñoo lijjanti seen bopp ñoo lijjanti xool jaar fii jaar fële ba mën a ñëw si dëkk bi donc Pastef boobu Pastef boobu ñu am ba ñëw si dëkk bi buñ ko defee incha allah buñ demee consulat dinañ mën récupérer affaire yi nag boo demee moom dañ lay wax ñëwagul mais ñoom date date officielle bi ñu xaw a joxe gu mooy le 11 janvier mais nañ dem rek essayer léegi ñun dinañ essayer ak association bi xool nan la ñuy organiser ak ñoom. bu fekkee mën nañ ci jàppale pour ñu dem récupérer quarante yi bu yàlla euh, ku mel ni Ibrahima Niane

te que li ñuy wax xam-xam du pexe nañu muñ rek xam ne léegi incha allah affaire yi jeex bu soobee yàlla. waa jël jërëjëf waay monsieur le vice coordinateur kon gars yi leer na leer na patriote yi nañ sacrifié wu dem consulat bi dëggal suñu bopp jël suñuy carte wala tamit ñoo ànd ak patience incha allah Ousmane Sonko sera le cinquième président de la République du Sénégal gars yi focus amul leneen wasalaam. waaw asalaamaaleykum gars yi toujours si kii parrainage ak nemmeeku tuur bi tey dañ fi taxawal tey suñu per per Bassirou saane di borom laago di Garda te samedi incha allah le deux bureau bi day déplacé wu ñëw si zone boobu Bassirou saane moo aye waa laago di Garda ñoo ane waa Calcinato Desenzano wër foofu yëpp léegi ñu jox la kàddu yi nga sànni nga woo papa sympathisant ak militant Pastef yi ñu ñëw bureau bi dina déplacé wu ñu ñëw papa parrainé ñu barkeelu def nemmeeku tour. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu. Eh, man la Basirou Sané maa ngi nekk maa ngi dëkk Calcinato Brescia Calcinato eh, comme ni ñu ko waxee eh, ñu ne Lago de Garda moo aaye man may borom Lago de Garda kon ngeen xam ne gars yi gën leen seen biir kër ngeen ñëw via Farinati Quindici man ma woote kon ngeen xam ne Lago de Garda moo aaye bugg nañu. battre record parrainage Brescia waaw maa ngi di lancer un défi bu nga xam ne da ngeen moo war a euh, sigil euh, sigil bu baax a waaw dañuy parrainer ba pare joxe waaw le 2 le 2 à 15 h jusqu'à 18 h kon gars message baa ngi nii jërëjëf. kon gars yi ñoo ko déggandoo waa Desenzano wa Calcinato waa Lago di Garda bi yëpp. basuri sahane sen sen sen sen doyen sen mak sen papa sen frère mo len wo mo mo ayee kon gars yi sigil leen ko na patrie yëpp sen sympathisant yob génn ñu parrainé dëggal suñu bop def suñu nemmiku tour barkeelu le combat continue focus 2024 Ousmane Sonko moy jomay merci beaucoup. pasteur chers patriotes frères et sœurs may ñow ak déglu ak déglu. di ziar mbokk yi di ñaanal sama borom mu defal ñu tawfiq lepp loo xamante ni ñu ci sonn mu ñu déplacement yi tous. ñu suñu alal ñu lépp yàlla yàlla may ci lu ñuy def. ngir mbokk yi bu leen ne dafa projet bu ñu topp doomu aadama bari ñàkk ci seen bakkan doomu aadama bari dem ci kaso doomu bari ki nga projet bi mu nekk ci sa vie professionnelle.

Sonko mooy Diomaye mm-hmm. bokk yi six ak neuf la nañu jaral lépp nañu jaral lépp bu ñu toog bu ñu dellu ginnaaw te ñu xam ne nag bu ñu amee ndam du Ousmane de kenn ku nekk si ñun ndamu boppam lay doon parce que kenn xeexul Ousmane kenn ku nekk si ñun boppam lay xeexal mbokk yi ñun ñii fi nekk nii ay porteurs de voix lañu mais aussi mën nañ nekk ay grands donateurs grands donateurs fan fii porte de voir au Sénégal nañu informer suñuy njaboot informer sur suñuy soxna informer sur suñuy doom informer sur suñuy goro informer sur suñuy dëkkandoo nous garde cette carte électrique de parrainé fii 111 Bassirou Diomaye Faye bu ñu ko defee incha allah lii projet bi yàlla rek moo ci man dara dinañ am ndam di sant nag mbokki patriote di ci jiital suñu coordinatrice bi Seynou bu baax Seynou bu baax ñoo ngi lay ziar ñoo ngi parce que moo tax ñu xam la parce que moo tax ñu xamante waaye wax dëgg ne yàlla liggéeykat te jàmbaar nga na nga yokk muñ di jëlale di jéggale xam ne Pastef province bi bu doxee yow kat yaay kilifa yaa ko jiitu sa sa tur lañ koy wax di jiital mbokki communication bi di sant ñëpp di sant Assane Gadio le vice coordinateur il a sacrifié amul lenn loo xamante ni bàyyi na ko lépp lu mu mën ñu koy def sa famille sa voiture ses moyens lépp mi ngi koy def sacrifié wu pour que Pastef mën a jëm kan bi sant Ibulaay di sant Omar di sant Soxna Kiya di sant Babacar di sant Assane Ba ñoom ñu nekk seen appui technique en matière de communication mbokk yi ñoo ngi siyaar ñëpp ma bëggoon leen wax nak mbokk yi ne dafa am ko xamé ci dina fi nek muy Ibrahima ñaan mbokk yi bu ñu jaawale ñaan ku ne fang ak ki nga xamante kilifa la Ibrahima Niane kilifa la ah, Ibrahima Niane ku baax la ah. Ibrahima Niane est un ambassadeur itinérant du Sénégal Ibrahima Niane ku sa bët fonk boo demee mu fonk say rongoñ ku sonn soo demee mu jàppale la ku bëgg ci kaw dëgg nag mu jàppale la Ibrahima de ba mu nekkee Italie ba léegi mu nekk ñu bari fi Brescia ñu xam ñii nga xamante nag dañoo ne fàng ñu xam leen ku ci am soxla boo demee ci ñoom danañ jéem a lekk li nga yor danañ jéem a def lépp ba yow da ngay ne siiw ak yëpp seen loxo waaye Ibrahima de moom kilifa la ñee nag ñu ne lañu kon mbokk yi kilifa ci jikko la kilifa doxin la kilifa nekkin la te Ibrahima yi mat na kilifa Ibrahima kon yàlla sama borom kat moo la boole le président Ousmane Sonko parce que yéen a bokk jikko yéen a ànd nekk yéen bokk lépp. intégrité bi loyauté bi fidélité bi ak dëgg bi justice sociale bi ngay doxal loolu profité président Ousmane Sonko di doxal kon Ibrahima yow Pastef la juddu nekk Pastef Pastef fekk la nga ànd ak Pastef kon Ibrahima jërëjëf na la yàlla fay lépp mu wax mu lancé benn appel Ibrahima jërëjëf mbokk yi kon ñoo ngi siyaat jigéen yi di wax nag képp koo xamante ni yaa ngi section bi ngay jigéen sa su mën a nekk fii say rakk yu jigéen ak say mag yu jigéen na ngeen préparé am na benn dîner pré campagne boo xamante ni ñoo koy programmé à Brescia le 23 décembre. ci saa Via Mandolosa Duecentouno Gussago. responsable communication yi dinañ ci wax te incha allah dinañ eggale lépp di sant bopp di ñaan lépp jàmm di dolloo micro bi. Euh, Ibrahima Ibrahima ñaan. suñu frère suñu xarit. jërëjëf Ibrahima. nuyu di leen maa leen war a remercier di remercier Seynabou ak ñi mu àndal ñëpp. Mhm. parce que li ma leen di wax rek nee naa leen chaque jour mouvement boo gis bu ngeen amee ñu gis da ngeen koy dooleel. dooleel suñu njiit nag mooy fexe ba ngeen encadré ko yéen ñëpp ngeen taxaw ñu liggéey. Mhm. Euh, politique c'est vrai dafa fiir politique dafa bëri loo xam ne doo ko mën a prévoir mais ñun li ñu gis mooy projet bi nga xam ne euh, président Ousmane Sonko ñu ngi ko taxawal dafa taxawal pour Sénégal yëpp te tey li leen koy wan mooy engouement bi nit ñi am décision bi nit ñi am ëllëg keneen ku fi mun ci taxaw it boo deful lu jaarul noonu la nit ñi waaye Sénégal yi xam ne léegi toppatuñ ci kaw kenn parce yaa fi nekk dañ lay topp parce que gëm nañ am nañ yaakaar ci yow yaakaar duñ nag yàlla bu mu tas man li ma wax chaque ni ngi wax man am xaalis mukk waaw mais am dignité moo gën am xaalis la man am dignité boobu mooy fexe ba li nga nekk nga gëm ko dëgg la loo wax nit ñi bu subaa boo defee moom wax ak lu ak lu dig dig dig na nga am sa honnêteté honnêteté intellectuelle boo xam ne li nga gëm mooy dëgg rek nekk ci dana bëri ñu la weddi dana bëri ñu la xalaat mais ba ci xam rek projet ñoo ko gëm Sénégal euh, fi ñu gis ngeen Macky Sall mer bi mer. dëgg positif bi mu am nii. moo koy wan ne. fi mu dem nit ñi topp ko moom xam na réalité bi mooy jeexal. dëgg la ku jeexal nag. dëgg la moom du neex àndal. dëgg la dëgg la donc lu neex nit ñi taxaw nañ nee nañ ko. nee nañ ko xeexuñu xuloowuñu. saagantewuñu lañ daan dal bu njëkk. dootuñu dalal. incha allah élection moom bëgg bëri bëggul bëri. ma réeru nit ñi dama benn waaye bu doon bu bëggoon bëri. dinaa ñaaxeelu doole yow booy doole yooyu mooy sool si leen maa dem ci làng gi gis gis benn waaye rek ñëw dëkk bi uh-huh. ah, waaye it mi daal di ñëw ne ko oto bi ñu demee nag bañ simmeeku nag uh-huh. moo gis ne kam song nag moom ponkal moo xam ne la uh-huh. mu dellusiwaat ci làng gi daal ne gars yi lu ngeen wax gars lu ko sëgg rek sëgg loolu moo daal Macky Sall woon Ousmane Sonko léegi nag bi ñu nee ba simeeku jot nag Ousmane simi si réellement bi nag dafa àddu booy bi nga yaakaaroon léegi nag mu bëgg a dellu ginnaaw dellu ginnaaw moom wees dëgg la donc ñuy boole ci rey il ñu boole ci kaf danañ ànd ak fair play ak maturité élection li ñu jëm wa danaa ko wax waa parti bi bi ñu nee bay bindu ci liste yi wax naa ko jéegu mi bi gars yi nee bëgg a fuloo ko mu bëgg a tàng xam nga dafa xaw a tàng ma ne ko dalal parce que ñàkk bindu moo leen arrangé bu ngeen xeexee ba affaire ñoom ñu ñibbi donc politique ñun li tax ñu ñu simmi ko ànd ak yéen mooy dañu bëgg expérience bi ñu boole ko yéen jàppale leen ci accompagner leen te soxlawuñ ci dara loolu nag moom mooy continuer ak yéen ba soir du 25 incha allah ñu taxañ Macky Sall jërëjëf jërëjëf waaye boo ko tàccuwaay tàccuwaay donc sax ñoo koy sant micro waa ah, waaw salaamaaleykum professeur yàlla nañ kii lu baax xaw naa xaw naa kii quoi xamatuma lu may wax waaw non di sant rek di gërëm ñëpp di sant di gërëm bureau bi yëpp commencé si coordinatrice ba ki nga xamante ne moo gën a tuuti si ay at muy baaba waaw parce que jafe woon na trop mais équipe bi vraiment euh, aw ma aw yal na leen yàlla fay daal équipe bi yal leen yàlla fay et yal yàlla musal si seytaane parce qu'on est en train de faire vraiment un très très bon travail. yàlla nañu yàlla musal si seytaane yàlla nañu yàlla musal si seytaane félicitations à tout le monde félicitations à tout le monde parce que dama koy wax fii ñëpp dégg Wuri Diallo mooy coordinateur passif Italie dama déggante ak moom mu ne ma vous êtes en train de faire un très très bon travail. merci beaucoup. bonne moteur. Passez, il a dit, d'abord, muy passé pression. Merci. kon nag nañ jàppoo kër doxal. waaw boo ko nay boo ko bàyyi xam ne. ñu ngi ci yoon bi. yàlla nañu yàlla musal si daal yàlla nañu yàlla musal si daal. jërëjëf jërëjëf balaa may ñëw si. voilà. asalaamaaleykum mbooloo bi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. di commencé di jaajëfal équipe yi yëpp équipe Pastef Brescia ci liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy def di si jiital suñu coordinateur Seydou Ba ak euh, suñu vice coordinateur Assane Gadio di gërëm si suñu sage yi nga xamante ni ñu benn yoon dañuy wax ne feccum liir su neexee mag ñaar euh, euh, ndey jaay jàpp ca mbagg mais itam suñu sage ñu leen di jaajëfal di si jiital grand Ndiaye

jàppale le président Ousmane Sonko ci liguey bi ci loolu ñun wa waa jigéen Pastef Brescia dañuy organiser le 23 décembre benn dîner de pré-campagne dîner bobu nak invité nañ ci les grandes linguères kii di euh, Khadija ko Diouf ak Soxna Maimouna Dièye ñu ñëw cette si waa Pastef Brescia ñu dalal leen fii Brescia kon ñu ñu mu nekk nag loo xam te ne cee kontaan bu baax a baax a baax parce que kenn ku nekk xam na ni Maimouna Dièye ak Khadija Mahécor bu nekkente ni nii Pastef garab la ñoom ñoo nekk rey parce que ñoom ñoo nekk jigéen ñi njëkk a taxaw xeex nekk ci ginnaaw président Ousmane Sonko. Mm-hmm. ñu tëj leen ci kaso yi fu Ousmane Sonko yendu ñu fanaan fa ak moom. Mm-hmm. nekk ay jàmbaar kon jigéen ñooñu tey jii nii suñu nee ba ci xeex bi ñun jigéen ñu kenn ku gis sa bopp ci ñooñu. ba tax tey ji ñu ñëpp ñu taxaw di xeex di takku ñu may ñu fit xam ni lu góor mën rek jigéen mën na ko kon euh, ñu ngi leen di woo ci jour boobu le 23 décembre euh, mu nekk un dîner un dîner pré-campagne bu nga xamante ne dañ ci defaale volet social xam naa sama mbokk responsable euh, social bu ñëwee moom dina ci àddu di leen wax rek sympathisants yëpp ak patriotes yëpp fépp fu ñu mënta nekk ñu ñëw jàpp ci dîner boobu te xamante ne réussite bi ñu ci di am rek lépp ci lever pour lever de fonds la pour japp ci pour jàpp ci campagne bi mu nek suñu liggéey waaw mu nek suñu liggéey ñun tamit ci levée de fonds boobu amul dara lo xam ne day dellu ci suñuy poche ndax pour mouvement des femmes la te mouvement des mouvement ci biir parti mooy dooleel parti ñu nag jigéen ñi mosuñoo des ginnaaw kon da ngeen ñëw entre bi 35 euros rek la nga lekk ba suur naan normal yi bëggee le président Ousmane Sonko dina am ay xalam dina am ay lépp yoo xamante ne dinañu gunge ci guddi googu mu nekk via Mandalosa 201 Brescia ñëpp xam nañ ko foofu la Sénégal yi di faral di def seen événement yi kon ñu ngi leen di jaajëfal yéen à partir de 18 heures ba 1 heure du matin ñu ngi fa ñu leen di jaajëfal yéen ñëpp ci leader bi nga xam ni moom la ñu yàlla booleel ndax Ousmane Sonko damay wax ni leader la boo xam ni dafa neex a àndal parce que dafa visionnaire il a une vision prophétique Ousmane Sonko ci mais boo seetloo war wax mais li am solo bi def attirer attention bi si mbokk patriote ci maximum de vigilance parce que li ñuy def nii devoir ñu koy def mais dafa am ci dafa am leen loo xam ne moom na dese muy njuuj njaaj waxoon na ni bàyyi na njuuj njaaj mais bàyyeeku njuuj njaaj te élection bi ñu ngi koy gagné d'avance muy fichier électoral mooy gagné élection. macha allah fichier électoral mooy yëpp ngi ci biir fichier bi soo xoolee ñoom organiser wuñ lan lañ def dañoo dem jël carte d'identité nit ñi recopier ko def ko muy seen fichier parrainage moo tax ñu ne am nañ 3 millions de parrain. mais amul kenn koo xam ne gis nga ne sur le terrain ñuy wut ay parrain kon loolu benn la kon nag un homme averti en vaut deux te li ñuy wax ne la manière la meilleure manière de résoudre les problèmes c'est de les anticiper alors nit ki nag soo nekkee moom mu mu nax la naxaat la waroon nag moo lay naxaat parce que élection 2019 ñëpp nangu nañu ne Macky Sall dafa sàcc élection dafa sàcc de élection législative yi ñëpp nangu nañu ne da koo sàcc mais l'opposition moo waroon a génn majoritaire kon nan bàyyi xel ci stratégie yi nga xam ni moom la war a tëral moom benn mooy Fuuta ak Matam il faut ñu sécuriser ko parce que mënu bu njëkk dañ daan wax ne ku gagné Dakar gagné nga élection yi parce que Dakar mooy la ville la plus peuplée mais léegi da ngay gagné Dakar

wax dëgg yàlla boo créé parti ni doon li nga Pastef war nga mën a am fépp fu bureau de vote nekk nga am fa benn représentant. Mhm. mais soo suñu la nee am nga 16000 bureau de vote te mënoo am 16000 représentants mais jarul nga créé parti. kon nañu def le maximum possible ba fu ne ñu am fa ay représentants ba bu ñuy compter xob ñu toog ñu compter ko. mais boo nee créé bureau de vote nga pare amatu représentant ñu buuree ñu nii kooku sa vote la dañ ci bàyyi xel. am na lu ñuy wax les bureaux de vote fictifs.

mu koy doog a génne xam nga la pour bañ a gars yi bañ a am temps pour mën a vérifier li nga xam ne loolu lañ ci defee. kon élection bopp moo koy gagné. mais du ay carte am na lu ñuy wax achat de conscience mooy di jënd nit ñi di leen jox ay cinq mille dix mille di jël seen carte dañu def sensibilisation sur le terrain ku ne sensibiliser sa famille wax leen ne leen seen carte bi dafa am valeur moo ëpp un million moo ëpp un milliard yooyu dañ ci bàyyi xel suñu defee loolu yàlla mën nañu dimbali élection yi Macky Sall mënul fa jaar fenn ba gagné élection yi parce que Sénégal Ousmane Sonko la ñu àndal Bassirou Diomaye Faye la ñu àndal kon maa ngi leen di sant. jërëjëf Arouna ñun ñaar nag euh, ñoo yore côté social bi fu mu nekk amul dara man sama parti bi ma siy dolli parce que li ma dégg fii euh, ñun ñëpp nous sommes doués de raison wax li ci wax rafet na donc euh, amul lu ma ci dolli à part. di social moy fondement lépp gis nañu suñu président Sonko déjà ni ko jiitalee jël dix dix pour cent ci salaire am di ko jox pouponnière bi nekk Kaolack donc euh, daf ñu ngi leen di yeeyaat daal sur le journée bi ñëw soirée bi ñu créé pour le 23. parce que euh, sama naataango bi sax moo gën am idée bobu parce que en général dañuy def ay collecte alimentaire mais dañu xalaat suñu bokku jigéen ñi rek ci prison yi.

السلام عليكم ورحمة الله يولي دين يقباخ آه، دين السانت دين الترم طور تسخ يباريخ أين خلق مقروع طولة بكفر عدتم يتلا دك لما يقوم يعني وأين أمليني وحيقنا أن خير الكلام ما خلق وطلع وخد يكات يعم جاري موكم وخد يكون بجوال خطير لور ما تخمنا لك ويكات لك ما نكفي مين يوريك لما يوجي نجم دوم بيتاري parce que bool moom tudd dëkk wala ta tàgge boo dégg dafa am jàppandiku comme man donga daara la ci donga daara laay waxtaan ndax il est temps peut-être lii nii ñu bëri dinañ ko gis waxuma sax pour ñu ne fii mais ñi nga xamante ne dañu bokk ci daara wala boog ay imam lañ wala ay oustaz lañ nañu xam ni am nañu ab groupe bu bees boo xam ni waa daara lañ képp koo xam ne yéen imam lañ dégg ngeen yéen sax sax moom wax ci man ma wax lii nag moom man foofu laay waxee ndax kenn ku nekk ci sa côté ngay waxee man moom ma wax sax ci social ndax daf ma intéressé ndax li alxuraan naan masalul lazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah kamasali xasbatin anbatat saxa sanabila ila axiril aaya loolu rek tax na ma waroon wax féeteeg ñii ndax def yoonu yàlla ndax seytaane ya'idukumul faqra waaye wa ya'murukum bil fahsaa'i seytaane moom daf lay daf lay daf lay mittil ak ñàkk ak joxe ii boo joxee doo am de waaye la yoon ba moom dana bëgg a xañ waaye daal li ma koy wax ci gàttal rek mooy ñun daara ñun daara yaa imaam ñun daara nañu xam ne am nañ benn groupe boo xam ni ñoo ko tax a jóg comme na mu mel Sénégal dañuy sant Ousmane Sonko ci lenn tey bu taxee dongay daara yi bëgg politique wala ñu jox leen cër ci politique grâce à Ousmane Sonko loolu moom bu ko jox jox te yàlla rek tax ndax wa maa alimnaa nag ilaa bimaa shahidnaa li li muy seede rek ñoo ko seede ci dëkk lii rek la xam naa ni sama wax foofu rek laa koy tënk ndax gàtt euh, na waaye nag bu fekkee jub na nañ ko jëriñoo lu ci dëng nag maa ngi koy tuub wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa salaamu ala man ittaqa al-hudaa ñoo ngi sant suñu di sant mbokk mi mi ngi tudd Mody Kanté dafa am tur tànk nag patriote bu ndaw nañ ko ñaanal gudd fan ak wér yaram di sant le ministre des finances Abdou Dieng di sant Talfa le ministre du budget et du plan ñoo ngi sant mbokk yi Bassirou ñoo ngi sant bu baax a baax

ku dul wax ku xalaat ni Tay Brecha, moom mooy locomotive bu Pasteur Italie Mais ku ma xam si terrain bi nga ma xamee te loolu rek laa doon xeex parce que dama xam une capacité euh, Pasteur Brecha, mooy capacité Pasteur Italie parce que Brecha, moom mooy représenté Sénégal ici, si donc gars yi ni ko italien di waxee rek ca la facciamo vraiment ca la facciamo waaw di remercier nag Ibrahima Niane di remercier waa élection yi remercier naa daal ñëpp daal juróom yëpp bu ma limee damay juum voilà léegi ma jox imam ministre ministre des finances. waaw ministre des finances. ministre des finances voilà léegi ma jox ko. baax na ñëpp euh, xam naa am na ay gàttal comme que xam bi daf ñoo xool daal. tey moom la ñu jot a récolté mooy trois cent quatre-vingts la ñu récolté tey quoi. moom la ñu récolté ci mille vingt et on a récolté mille cent soixante-dix la ñu récolté. waaw ñu ngi continué ci liggéey bi mais ma fàttali ko liggéey bi ñëpp dafa am benn promesse ne waxoon nañ

alors depuis que depuis que j'ai lancé euh, parrainage de léegi ci euh, le bureau euh, di lëkkaloo de déggante di teg ay plan communication les militants et sympathisants qui sont là puissent au moins venir participer à ce parrainage mais également à la levée de fonds qui est lancée, qui permettra à notre candidat de pouvoir assurer la caution qu'il lui demandée. Donc, euh, Mashallah, pour ça marche. Et effectivement, on a eu plus de 600 parrains hier. Aujourd'hui, on est dans l'approximative de 200 et quelques. Euh, et le travail continue.

dans le côté de la regarda à Kalkinato plus précisément donc un euh, ku de a vous boo ñëwee foofu da vous ñu ñu euh, signé nous donc euh, à Kalkinato via parrainage Kouendiki Donc, je répète à Kalkinato via parrainage pour la journée du samedi 2. Que pour que vous parrainer on est disponible l'équipe est là-bas mais également pour nous passer information comme on est en train de le faire vraiment nous sommes conscients aujourd'hui que les Sénégalais ont bien compris le projet que nous a fait affaire mais c'est l'intérêt de tous les Sénégalais qui est recherché c'est cette révolution qu'on veut mettre en exergue donc moi, pense euh, sama wax du du ma

merci jaajëf tey moom njiit le président Ousmane Sonko yàlla génne ko ci kaso mu nekk yàlla def ko mu nekk cinquième président de Sénégal yàlla dogal tamit patriote yi nga xam ne yëpp ñoo koy jàppale yàlla may o tawfiq jàppale leen seen liggéey bi fi ñu bëgg jàppale le président mu ñu man ko ñu ngi wala salaatu Ibrahima. amiin amiin